Euh, Moustapha Diakhaté euh, Diakhaté bokk sama ndiyaay la ñu dem rési am na ay kàddu yu mu ci ñaari député yi nga xam ne nee nañu boobaak léegi kenn gisu leen. maa ngi masawu Aminata Ndiaye. d'accord di ñaan wér jàmm dégg naa dañoo daw xam nga ça c'est de la lâcheté Baba am ñàkk jom ba toll dóor jigéen amoo looy def du làqatu ngir bañ police teg la loxo et je demande à la fu ñu mën a ne nañ leen jëli génn leen soit ñu jàpp leen. ñuy dund wala ñu rey leen génne leen. ñu bu ko laajee. mort ou vif ces gens-là doivent être pris. mi ngi noonu <clears throat> kon Baye kàddoom yi mu mel ni ñu baree bari ñaawlu nañ ko donte ni man li mu njëkk a wax am na lu mu wax ci biir mook ji ñoo ci bokk xalaat muy am na ñu am gis-gis suñu jigéen kenn waru koo dóor man keroog bi ñu toogee man ak saa dafa d'accord ni bu doon man du ma dóor man ma ne ko man ku saaga ku ma saaga saaga sama sëriñ ma dóor la xam kon foofu mook alaajee fa bokk gis-gis mooy jigéen kenn waru ko dóor léegi ndax li mu mujjee wax d'accord nga ci ak moom ak ban gis-gis nga am ci waxam ji. mooy ñi nga xamante ni ñooy député yi nañoo génn dem def li defi seen liggéey. Hmm. ñu xam si lan lañ nekk. Hmm. député yi nañ dem defi seen liggéey ñu xam ne député yaa ngi fi. ma li nga bëgg wax. maanaam ba ma dégg ñu ne député yi daw nañ ba léegi xam ma dara si député yi daw nañ rek laay dégg xaw ma ah. anañu ah yow da nga ne ñoom ñu génn defi seen liggéey dem def seen liggéey sa ensemble ba ok bu fekkee dañ leen a pelente ñu dem wuji pelente bi mm-hmm. ndax lii si réew mu réew mu normal réew muñ ne am na sécurité ñaari nit ñu ne daw nañ boobu ba léegi kenn mënut a xam si lu nekk kenn mënu leen a jàpp kon réew moom a sécurité bi day des mm. du dëgg waaw ndax tey jii bu fekkee ne nañ Assane kat def na dara waaye daw na. Mhm. normalement balaa ineera war nañ maa jàpp si réew mu am sécurité. Mhm. kon nag ñoo xamante ni léegi moom ami fan te xamuñu si lu ñu nekk loolu moom wóorul si seen sécurité ñoom waaye wóorul ci réew mi it. waaw ah. kon nañ si daal di taxaw. d'accord si nu mu gën a gaawee. mais damay dégg seen wax lu ñu wax rek ni xaw ku leen mënti làq. Mhm. ndax dañoo yaakaar dafa am ku leen làq. waa xam nga daw nag moom daw buñ nee nit daw na rek lu nekk si mën a am waaw ah, daw daw mais yaakaar naa ne man ñii bu ma doon ñooma man duñu sax daw. duñ daw mukk si àddina duñu daw duñu làqu ji dañuy dem def seen liggéey bu ñu leen pelantee ñu dem wuy ji. Mhm. bu fekkee dañ leen di tëj seen nawle lañ fay fekk bu dee dañ leen di corriger seen i morom la. te ñoom ay mais est-ce que daw la est-ce que daw la parce ne woon ko moo tax ma wax mhm. mbalaanum kiir laay mi war nañ koo muri bu ah waa ñee bañee ni duñ ko mureet kenn mënu si ñoom tous. d'accord te yaakaar naa ne kenn ëpp leen fa maturité. Mhm. ñoom waa ëpp ñu leen ko fa. ñaar lañ leen ëppalee. ñaar lañ leen ëppalee mais ñay ñay ñay tukki daa bari. d'accord kon mm, ba ñoo muri seen balaanu kii raay duñ ko nangu te buñ ko nanguwut euh, kenn du leen tëj kon lu ñuy daw. kon loolu lu ma jaaxal la lu ñu waral taxaw leeral ko askan wi ñii anañu ak fu ñu ne. d'accord beneen bi nag moom si boppam loolu mu wax. moom kan. moom Moustapha. Ah. waxoon naa leen nañ ko yóbbu place de l'Obélisque. Ah. déet bul wax la nga waxoon bu njëkk. summi ko ba mu set non tey duma ko rey moom mooy reyee mais man duma ko rey. Ah, summi ko ba mu set wicc ëpp naa def mag la. ñu duma ah. kooku kan lay wax moom. bàyyi noonu loolu. rek ñëwal rek graawul ñëwal rek. Ah, kon joxe hélas. waaw. Ah. duma ko laa naroon. <laughs> ëpp naa def non non koy rayee ak saaga yónnante bi lañu wax. non non graawul ah, noonu amul problème bàyyi noonu. jaxate nijaay ñoo ngi koy siyaare baax a baax am na fu ngeen bokk yow ak Moustapha de ci wax ji mooy jigéen kenn waru koo dóor yéen a fa bokk ndax leneen lim ci teg moom d'accord nga ci waaw ah, moo tax nag war naa commencé nag di seetaat samay wax ginnaaw man ak moom ñu que am na ñoo xam ne ci àddina euh, waroo seeni wax warta jege ah, lu tax waaw ah, parce que bu seeni wax jegee yéen gis-gis euh, yaa ngi bëgg a dugg ci lu garaaw donc suñuy wax moom warta jege waaw donte nag am na loo xam ni man li ma la waxoon ci njëlbeen dama la wax ne la xam nga bu ñu la éduqué ci éducation yoo xamante ne bi depuis nga nekk xale bu ndaw jigéen kenn du ko dóor kenn du mm. def li ci yooyu éducation yooyu nga xamante ne bi ci nga màgg mm. chaque jour dañ lay wax ne la ku ñu war a yërëm la ku ñu war a def ni la ku ñu war a def laa mm. donc man ci loolu mooy li nga xamante ni bi moom laa gëm quoi wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla jàpp naa ni <laughs> jigéen bu ma saagaa it bu jàkkaaroo woon ak man saaga ma mm-hmm. du ko dóor yow ah jàpp naa ni moom euh, xalaatuma benn yoon daal yëkkati sama loxo jëmale ko. Hmm. waaw loolu nag lenn la rek. ci hmm. muy. gis-gis muy sama. kiiw bopp la daal. Hmm. parce que jàpp naa ni am na yoo xam ne kiiw tarit euh, ay dàggasanteeg yenn yi. <laughs> defe naa am sax ay yabel defe naa waaw naa ni yenn yi warul quoi. léegi nag bu ñëwee. Ah. ci li nga xam ni moom la Moussa Diakhaté wax xam Moussa Diakhaté waxam mënatul a rëy ci jullit. waaw ku mën a taxaw wax su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeyam gënul sama ndey nga taxaw wax li nga wax noonu mm. loolu mm. Eh, kooku waxam mm-hmm. mënatu la jullit mënatu la maanaam mënatu la wax lu rëy mënatu wax lu rëy lu ah, weesu loolu man mënatu la wax lu du bett kenn maanaam lu mu wax rek du bett kenn eh, mën na ko wax d'accord dégg naa la lépp lu mu wax rek mm-hmm. mën na ko wax kan moo ko wax ñu Moustapha ok. maanaam kon Moustapha mënatu la def scandale mënatu la def scandale ci man ci <laughs> yii nga xam ni moom lay def nii parce que séntu naa ko ci yu gën a piir yii mu nekk sax. léegi nag mais bu ñuy wax nag pour réew mi. xam nga son yi bu. dañu nekk ci réew moo xam ni fi mu toll nii. man defe naa ni euh, président Macky Sall nattut euh, dëkk bi fi mu toll man par exemple damay toog ba ci damay tiit ci dëkk bi. damay wax ne dëkk bi. Euh, fi mu toll nii. defe naa ni war nañoo toogaat li sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si doon wax naa nañ sang réew mi. Mhm. war nañoo toogaat. diagnostiqué waat réew mi am ñoo xamante ni bii wax dëgg fa yàlla war nañu ko loolu xam nga président Macky Sall mi ngi wax li ci réseaux sociaux yi. Mhm. mais ñiy wax ci réseaux sociaux yi ci gën a garaaw Moustapha Diakhaté mii mooy mhm. njiit li. mooy njiitu waxkatu toj toj yi. nekk ci réseaux sociaux parce que mi ngi ci réseau yi. moom mi ngi ci réseaux yi mi ngi fépp. comprendre nga te li muy wax yëpp ay wax la yoo xamante bi gis nga mbirum euh, député yee kii uh-huh. mbir la moo xamante ni nuñ ko gaaw a fayee uh-huh. coow liy jeex ñu jàll ci leneen mooy li gën ci réew mi oh, gis nga bu ñu ko poursuivre wallaahi mën naa indi loo xam ni uh-huh. musiba lay doon te bu boobaa ay Moustapha Diakhaté keneen ak ñun ñëpp bu kenn wax ni mën nga cee mucc d'accord parce que réew mi lañ am te ci réew mi lañ ne su boobaa kuy responsable bi kuy responsable bi lu dul ñi nga xamante ni bii ñooy bàyyi. mooy assemblée coow li ah. di continuer. defe nañ ni ñoom fi mu toll xam nga tey maanaam dafa mel ni dafa am euh, li sëñ li ñu doon nett li sëñ Cheikh dama naa xam kan moo ko doon nett mooy histoire bi nga doon nett li mhm. mu jëm ci wàllu si ndax bàkk kii bi. Ah, nit ñi toog di seetaan sama yoon néew ci. fi mu toll nii maanaam loolu lañ ne. Mhm. naan ah ñoom daal ñooy coow seen coow waaye mais gis nga fi mu toll nii coow lii. Mhm. bu ñu ko seetaanee parce que ñoom ñi nga xam ne ñoo féete parti au pouvoir seeni wax yamaleetuñu ko ci euh, kii. député yamaleetuñu ko ci maanaam. waaw am na ci képp ku am sëriñ léegi daanaka dañu bëgg wax na ñu yamale suñuy sëriñ. waaw dégg naa dégg naa Cheikh ko wax. xamaguma déglooguma soo bi Thérèse nee na Thérèse nee na ko bu ngeen bëggee. waaw ku respecté seen sëriñ ngeen ngeen seen sëriñ. c'est que ne réglé leen sëriñ yi. c'est que Thérèse Faye loolu moom wax waxu waxu yabaat. yaa ngi dégg yooyu ñuy wax noonu. Oh. mbir mi. loolu tooñ la moom jëm foo xam ni parce que ñoom fi mu doon li ñu nekk maanaam dañu mus xam nga moo tax gis nga yàlla nañu yàlla musal ci baadoo la uh-huh. buy jot ci dara loo xam ne yaakaarutoon ni mës na ko mën na coo jot uh-huh. ci dundam te xam na ni lii bis bu ko ñàkkee jeex na si day jëf parce que attention bés bu ñu ko ñàkkee jeex na jàpp nga loolu ah jàpp nga loolu bés ñii mën mënuñoo ñëwaat nu ñuy ñëwaatee Ah, président Macky Sall de équipe ba demoon na ñëwaat. non non exemple ñëwoon ca Wade. ñoo gouverner Wade. waaw mais xam ñu mm. nekk nii xam nga mooy lan. am na ñu nekkoon ci Wade ñoo xamante bii ba léegi nekkatuñu fa jëkk jëwul nekkuñu ci kii am na ci nag ñenn ñoo xamante ni bii tey. ñu eh, ay tedd yu bees parce que amul. waa mais xam nga tedd yu bees <laughs> am na mënoon na am. mais tey lii ñëw. ñoom mm. liñ jàpp ni mooy ñëw. Mm. mooy Sénégal gu soppeeku politique yi. jëm ci leneen politique yi nelaw yi. Mm-hmm. loolu mooy li nga xam ne moom lañ gën a ragal fi mu toll nii. ok xanaa xam moo tax gis nga Ousmane Sonko mii. Hmm. Euh, am na politiciens yu bari yoo xamante ni bii tey dañuy sóobandoo nii rek parce que xam nañ ni waa ji moom la nit ñi àndal. Hmm. moo tax ñeme ñoo wax waaye ànduñoo ak moom gëmuñu ko. ah oui ah na. bari na ñoo xamante moom ci boppam xam na ko. parce que gis nañ xam na ni am na ñoo xamante man gis naa ka ne woon ci géej waaye ànd ah. moom ni moo fi moo fi nekk. waaw ba dem jot mairie ba léegi nee na Malick a tax mu gañe waaw xam nga loolu day nelaw. xam nga ni wax dëgg fa yàlla bu fekkoonte ni dañoo beroon risque boppam. waaw bokkutoon ci risque yeer du gañe mairie ba loolu moom Sénégal yëpp xam nañ ko. donc euh, dafa am vent boo xam ne mu ngi soufflé te ngelaw loolu. jàpp nga dina yegg maanaam am na ñoo ne dañ naan bon bu ma bàyyee lii bu ma jéemuta nangu. Euh, damay bokk ci ñi ngelaw li di yóbbaale. ok que ngelaw li nag ñi ko porté ay xale yu farlu lañ. Mm-hmm. xam nga. ndaw ñee ko porté te. dañ cee porté boole ci farlu gu mat sëkk. Uh-huh. léegi nag politiciens yii nga xamante ne bi ñoo fi nekk. Uh-huh. am na ci ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ ni yëf yi bu rotee dootuñu nekkati leen. waaw parce que ñoom des réew mu jagut. Uh-huh. moom mooy bi jag ci ñoom. xam nga dafa am ñoo xam ne jagadi réew mi. Hmm. wallaay ñi ngi ci suqaliku. maanaam jàkk na ci ñoom. d'accord donc nag ñooñu bëgguñu yenn yi daal day am. macha allah.